jàll tam ko dippee nekk kenn ki nga xam ne nag moom mooy libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga, libéré, Amiga. libéré, amida libéré, li message bu ñuy lancer libéré libéré Sonko libéré voilà Mampate Mbaye bokku ci ñi nga xamné nañ bu ñu yooxu kenn parce que borom caq du xeex borom baatu kese na ñëpp dal tey képp patri bépp patriote nañu taxawee benn endroit ñi def suñu événement ci calmement bu ñu am benn débordement man loolu laay ñaan tey kullu patriote nañu taxaw benn côté téye seen i flyers def seen manifestation comme nit ñu ko mayee bu ñu yooxu benn leader bu ñu am benn leader ak xaar yàlla c'est-à-dire nit du liggéey ba nga xamante ni da ngaa yekk pour teg nga nangu nit ñëw wala yow nga jël sa bopp sotti sa bopp suuf loolu bu leen ko nangu ah moom laay ñaan patron tey ñoom ñëpp nañu taxawee de côté bu mu am benn débordement parce que jubluwaay bi ñun xam nañu ko te donc mbir mi jeex na ba pare moo tax ñëpp maa ngi leen di ñaan kullu patriote nañu taxawee de côté ñoom ñëpp dal calmement loolu la suñu leader yàgg santaane parce que tey du bés boo xamante ni bés bu war a jaxasoo la bés bu dal la ñu wane suñu bopp jàllale suñu message comme ni ko ni ko ni di dégloo moo gën ñun ñu ñu ki ñu fi xam nañ ko te suñu leader bi mbir mi tollaat fii muy président Ousmane Sonko donc xam na ni muy waxee ak askan bi li ma leen di xamal tey mooy Amadou Ba mu ngi ñëw mooy ki nga xamante ni mooy suñu mandataire moom la Bassirou Diomaye Diakhar Faye mandataire Ousmane kim ñu joxoñ mooy kenn muy jenn jëmm muy Bassirou Diomaye Faye la ñu joxoñ ah li Macky Sall bëgg maa ngi koy wàcc alxuraan bis ni que tey Macky Sall bëggut élection ku nayif ba Macky Sall dugal la ci pièce bi dootoo ko defati ba àdduna tukki Macky Sall mébétam yëpp mooy fi mu toll nii féngal lañu ba ñu jaxasoo dispersé ñu ba ñu jaxasoo mu tas affaire bi ñu tëggaat ko bu ñu ko tëggaatee Ousmane du bokk ku bëggul Diomaye bokk bëggoo Ousmane bokk maa koy sant di ko gërëm bu baax a baax euh, ci kaddu yi

buñ ñu dugal ci pièce bii ñu ñuy tàndal nañu bañ bugguñu Ousmane sonk bokk ci élection yi moo waral rabattre bi lépp lépp lépp déclenché nañ nag actuellement nii seeni machine actuellement nii déclenché nañ machine yi commencé nañu dëkk bi yëpp commencé seen journalistes yi seen wax yi seen chroniqueurs yi yëpp seetaan leen plateau yi fan yi le problème année mooy dañu déglu conseil constitutionnel dina dina dina dina délibéré semaine bi incha allah gën ngaa bëri semaine ba ca bu soobee suñu borom fi ñu joxoñ ba keroog Ousmane di waxaat ah ñi gis lu ko weddi ñun nañ téye ci lim ñu wax nañ téye ci kim ñu joxoñ moom laay wax kullu patriote bu leen kenn divertir bu leen kenn dugal ci leneen bu leen kenn divertir bu leen kenn dugal ci leneen Macky Sall bëggul ku jege Pastef bokk ci élection billaahi wallaahi watallaahi diaspora beeg adduna beeg yëpp Ousmane mooy Diomaye Diomaye mooy Ousmane ñoom wax ñoom ñaar mana naa waxee sa place morom ñoom ñaar ñëpp dañuy liirante ñoom ñaar ñëpp dañuy liirante gis nga dama leen wax benn mbir parfois boo ko ubbee kenn mënul dox seen diggante patriotes yi xam leen li ngeen am xam leen li ngeen am Ousmane Sonko li mu leen doon wax dem leen ci waxam ju daawa daaw jéeg ak daawaati jéeg lépp lu mu wax lu mu leen waxoo teg ngeen seen bët Macky bëggul élection am ku jege Pastef bokk ci Cheikh Tidiane du bokk bu ñu demee Abib Sy du bokk du bokk Ousmane du bokk wallahi lancim def leen ko seen bopp yi bis dëgg tey asalaamaaleykum li mu dafa bëri depuis de Macky Sall waaw may wax rek di fàttali ko ne ko sénégalais bu muy jàng école sénégalais moo ko jàngal école ba mu am bac dugal ko si université yi bu mu taxawee pour liggéey sénégalais moo ko jox liggéey parce que poste bu nekk senegal jox na ko kon nekk bu mu bàyyi ba tey jii nii Sénégal jox ko lu gën a moom muy président de la république ñu jox ko ko mu dem ba war a jeexal ba mu desee daanaka 21 euh, jours mag Sall mooy day aj élection yi si lan si sama sama teeyu bakkan moom bu muy jàpp bu muy aj élection yi waxtaanu si ak kenn dialogue si ak kenn kon nag bu mu bàyyi ba conseil constitutionnel ne ko jàppal date élection mu ne day dialogue te ñun ñun jeunes yi dañoo taxaw dañu nangu benn maggut pas diñu yoroo diñu diñuy devenir suñu avenir suñu avenir ñun ñooy xool suñu bopp ñoo ko taal suñu bopp benn maggut pas du toog du toog fee xaw ma sant Abdou Diouf xaw ma mu toog fee naan moo ñuy dicté suñu avenir ñoom dañoo jeexal perte ay pas yu perte nekk fi sonal ñun suñu date lañ la te nekk jàpp balaa le 2 à part le 2 lépp su ko jàpp date bi ñu gis ne xam ne jeune bi la te Macky Sall na maytu jeune bu yeewu Thomas Sankara di wax na ko mu ne ko mu ne ko jeune jeune bu mu la bu taxaw danger la na mat jeune yi yeewu parce que jeune yi de mu jàpp ni gars yi mi ngi nelaw de te instant gars yi dañuy génn mais bis bi ñu